bu fekkee droit kese la ñuy wax droit kese kese kese la ñuy wax Ousmane Sonko amul lenn lu ko teree mën a nekk candidat te moom yàgg na ko wax du magistrat du juge du kenn parce que xam na ni ci yoon la nekk moo tax à chaque fois da wax ni que képp ku dul ku dul yàlla sunu borom ak ñi mu àndal ci parti mën na koo tere nekk candidat te effectivement ñun à notre niveau loolu lañ gëm ba léegi te gëm nañ incha allah dafay nekk candidat salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi site Lebu RMD TV dal leen ak jàmm tey nag ki leen indil yaakaar naa du gan ci yéen muy Serigne Moustapha euh, Bassirou Gueye kenn ku ci nekk xam na ko tey nag euh, mu bokk ci li nga xam ne moom mooy parti bi nga xam ne moom moo di Pastef euh, Serigne Moustapha ñu ngi lay nuyu di la jaaj jaajëf. maa ngi leen di jaajëfal bu baax waa sit internet bu Lebu di rafetlu encore une fois. Euh, dalal gi ngeen ñu dalal donc mën nous sommes des partenaires parce que c'est pas la première fois ñu def émission donc yàgg nañ ko def donc euh, on je suis coutumier des faits donc d'abord euh, damay présenter pour ñi nga xamante ni ñu ngi may soog a suivre maa ngi tudd Moustapha Bassirou Guèye dëkk commune bu Mérina Dakhar nekk conseiller municipal nekk un citoyen engagé en plus bokk ci parti bu ñu wax PASSEF en même temps je suis membre de Frappe France Dégage sëñ Moustapha tey kenn ku ci nekk gis nga li nga xamante ni moom moo xew mu dal ci seen seen parti ki nga xam ni moom moo di président Ousmane ko tey génne woon nañ ko ci liste élection 2024 yi tey bi ñu demee fële ca Ziguinchor kenn ku ci nekk xam na ni juge bi bi mu àttee daf ko jox dëgg bi ñu fa jógee euh, état bi daal def recours ñëwaat fii nga xamante ni moom mooy cour suprême ñu joxaat euh, président Ousmane Sonko dëgg bi. tey euh, ñoom nag tey ñu taxaw tey jaawaa jonge bi nga xam ne am na seen diggante tey ñu wan leen a jox fiise tey ba jamono jii ñii li des si élection yi bariwul jotagoo leen fiise tey ana ban jàngat ngay am ci yooyu. donc jàngat bi may def juste que euh, damay wax comme ni nga ko waxee tout à l'heure euh, passef parti bu organisé wu la Ousmane Sonko nekk njiitul parti passef comme ni nga ko waxee ku nek xam depuis 2021 mille et ba état bu Sénégal mu ngi koy fexel fexé bi nak moy rien que mu bañ participer ci élection présidentielle bi 2024 mille vingt quatre euh, bi loolu amee ñoom def nañ seeni pexé ak seen jugement biñ ko def par contumace ñi dañ koy génne ci liste électorale yi def nañ seeni pexe ba rajo ko ci liste électorale yi ku nekk xam na ni rajo bi ko rajo jaarul yoon jaarul yoon euh, bi loolu xewee yóbbu nañ Casamance Ziguinchor tribunal bu Ziguinchor atte jox ko dëgg bi tribunal atte jox ko dëgg euh, terewul état bu Sénégal dafa def euh, recours yóbbu ko cour suprême bi demee cour suprême cour suprême dafa dàqaat atte bi daal di ko yóbbuwaat tribunal hors classe bu Dakar. bi ñu demee tribunal hors classe bu Dakar mu àtte joxaat dëgg le président Ousmane Sonko. donc kon euh, dama jàpp ni que euh, Sénégal yàgg na am ay juges yu maandu Sénégal yàgg naa am ay juges yoo xamante ni ay magistrats yoo xamante ni maanaam il ne dit que de droit maanaam li nga xamante ni moom la yoon wax loolu la ñuy àtte te fii ba jant bi fay bis bu ñu àttee Ousmane Sonko bu ñu waxee droit Ousmane Sonko mooy am dëgg seen kaw. tey mais euh, bu ñu gisee tey ngeen dem ba heure bii nii euh, ngeen dem fee nga xamante ni si moom mooy DGE doon fa yaakaar benn fiise mu mel ni tey muy ñu leen ngeen dugg tey ana ana ana tey jii nan ngeen di mën a jàkkaarloog seen seen maanaam ñi nga xam ni ñoo ñoom ñoom ñoo nekk seen ginnaaw ni leen tey di ngeen bokk tey ana ban yaakaar lañu am. waaw bon li may wax rek mooy euh, li ma waxoon sànq que ni à chaque fois bu ñu waxee dëgg bu ñu waxee droit appliquer droit. Ousmane Sonko moy moy am dëgg kon nak mën naa jàpp naa ni ñi nga xamante ni mooy moy mooy euh, DGE ak euh, Sénat ak ministère ak kum ci mëna doon xam nañu nekkuñu ci deug parce que Ousmane Sonko mënul yoon jox ko deug ba paré mu dem DGE ñu gantal ko ni ko du ñu jox say fils de parrainage té japp naa ni décision de justice Macky Sall wax na ko récemment mom dina veiller à ce que tous les décisions de justice ñu appliqué mais bi mu ngi ni décision de justice bi wax ni li la wara démé administration taxaw défier ñi nga xamante ni ñooy suñu justice donc kon loolu dañ koy ñaaw ñaawlu xam ni que bu fekkee droit kese la ñuy wax droit kese kese kese la ñuy wax Ousmane Sonko amul lenn lu ko teree mën a nekk candidat te moom yàgg na ko wax du magistrat du juge du kenn parce que xam na ni ci yoon la nekk moo tax à chaque fois da doon wax ni que képp kudul kudul yàlla sunu borom ak ñi mu àndal ci pat mënoo koo tere nekk candidat te effectivement ñun à notre niveau loolu lañ gëm ba léegi te gëm nañ incha allah dafay nekk candidat parce que yoon moo ko permettre mu nekk candidat parce que amul benn yoon boo xamante ne tey yoon wax na ni Ousmane Sonko waru nekk candidat ñaari yoon la ñu ni ñu dem ci ñu dem tribunal mu gagné leen donc kon lan moo ko mën a empêcher tey mu nekk candidat amul ak lu mu metti metti metti metti DG li muy def manam du yoon du droit tegu ko fenn day def lu ko neex tey dama la jox exemple tey boo desee nag benn benn militant APR dara naan Ousmane Sonko du bokk boo ko question ni ko lutax Ousmane Sonko dana en tout cas dal du bok mais ko xam nga doon waxul droit donc kon encore une fois amul len ma waxat ko amul len lu meuna a empêcher Ousmane Sonko tay bu fekke ci walu yone kese amul len lu ko meuna a empêcher mu nek mu nek candidat donc ñun nak à notre niveau on va se battre dinañ xex à ce que mu nek candidat te incha allah suñu candidat comme ni ñu ko waxee moy suñu plan B moy suñu plan A ba Z Ousmane Sonko sera notre candidat inshallah en 2024 il sera le cinquième président du Sénégal inshallah tey euh, mais yaa ngi wax ni euh, di ngeen di di ngeen di dem ci ay élections mais damay dégg ñu naan parti bu di sudur tey tey kenn kenn mënu ca bokk li nga xam ne moom moo di euh, nekk ca candidat tey boo gisee yu mel noonu te tey maa ngi dégg ngeen di wax ay ex Pastef yeneen ak yeneen tey boo boo boo gisee yan leeral nga ci mën a. voilà foofu li ma fi wax xam naa du bëri parce que ku nekk déglu na ñi nga xamante ni tey. ay expert lañ ku ci mel nañ ku mel Ndiaga la expert jum lañ jël ku mel ni daaw Lamine bi nekk TFM expliqué leen clairement lu leer parce que nit ñi ñoo bëgg a dox ci xelu nit ñi di leen xamal ni leen parti bu ñu tas ku ca nekk mënatoo nekk candidat fii ak un an te loolu c'est pas fondé amul parce que euh, déglu nañu ay constitutionnalistes yu mag ñoo xam te seen xel dafa màcc wàllu droit expert lañ wax nañ ko lu leer manaam maanaam ñoom li ñu wax ak li waa wax bokkul amul leen tey us euh, amul lenn tey loo xam ne parce que du Diomaye bu bëggee nekk candidat amul lenn lu ko empêché mu nekk candidat Birame Souleye la même chose dem ak euh, abas Fall ak keneen ak keneen El Hadj Malick ñëpp képp ku ci bëgg a nekk candidat ak Guy Marius Sagna mun nga nekk candidat loolu empêché la parce que donc euh, kon ñoom li ñuy wax amul benn fondement te dara taxawu ci donc kon Pastef mën nañu expert la parce que ñoom fef nañ seeni pexe ba tas ko mais terewul képp ko xamante ne nekk nga foofu tey boo kon ci parti boo bëggee présenté wu mun nga nekk candidat tey euh, sëñ est-ce que yaakaar nga ni parti pour pour pour pour pour confirmer li nga ma laaj maanaam li Sénégal tous les moyens pexe yi jaare administration rien que pour participer ci élection mais lan moo tax participer parce que wóor kon élection Ousmane Sonko élection yi deux heures. balaa 14 heures ni ñu jul tisbaar élection yi jeex mu jàll premier tour parce que li koy firndaal mooy euh, tey foo génn ci dëkk bi tey def benn sondage boo duggee ci oto sax def benn sondage tey 80 pour cent yi Ousmane Sonko la tey mbooloo boo toog tey 10 personnes yoo toog 8 ñu ngi ànd a Ousmane Sonko loolu rek dafay nekk benn sondage bu bu bu terre à terre boo xamante ni war nañu ko ni tey bu ñu demee élection balaa 14 heures incha allah Ousmane Sonko dafay jaar élection premier tour te ñoom loolu lañ ñu nekk. ñom xam nañ système bi da fay daanu té inshallah Ousmane Sonko dina nek candidat dina nek président. sëñ Moustapha est-ce que euh, système bi ngeen di wax système bi système bi est-ce que dina yomb tay ji ñu jël fi li nga xamni ne moom moo système bon euh, loolu mën naa ni lu yomb la lu jafé la parce que euh ku nek xam depuis 1960 ba légui euh ben système bi la Sénégal dund mais nak ñun dañuy jaajëfalaat encore une fois le président Ousmane Sonko parce que tay dafa démasqué ñi nga xamante ni ñoo nekk système bi ñëpp daan ci dund parce que système bi dafa yaatu. duñu ay politique kese lañ am na ay religieux am na ay ay ay ay ay traditionnel ñëpp ñoo xamante ne tey ñooy dund ci système bi te booy xool tey pratiquement ñoom ñëpp la seen i masque tombé masque yëpp daanu na léegi xam nañ ñi nga xamante ne tey ñoo nekk système bi di ko dundee te loolu jàpp nañ incha allah après 2024 loolu dina jeex le Sénégal dina am beneen volet dina am beneen beneen beneen beneen beneen tànk boo xam ne ko taxawee te dinañ changer système ba nga xamante ni dinañ waxuma la non seulement Sénégal dinañ ko changé mais Afrique sax dina changé comme ni ko Mali defee comme ni ko Niger defee comme ni ko Burkina defee ñoom ñu créé seen benn seen benn benn benn union pour mën a taxawal seen monnaie bopp te loolu incha allah bis bu Sénégal changé Sénégal am na possibilité sax dem adhéré ci pour mën a bokk ci monnaie boobu. tey eh, ñu jàllaat ci beneen ponk tey ñu ngi la fekk fii nga xam ne mooy commune bu Mérina Dakhar tey ngeen nekk fekk euh, benn benn kii boo xam ne tey kenn ku ñu ràññee na ko ci langue politique bi muy Aymérou Gningue tey est-ce que mën nga ñu wax tey taxawaayam fii nii ci commune bi. waaw euh, merci Diadia encore une fois ma nuyu waa Mérina Dakhar yëpp euh, maire commune Mérina Dakhar boo ma ci laajee dinaa sawar pour wax parce que je suis municipal ci commune bi laa bokk nekk fi conseiller municipal askan bi tànn ma ma représenté leen foofu. mais li ma mën a wax rek ci maire bi mooy euh, li fi may commencé mooy dafa nekk lañu maire dañu fal benn maire boo xamante ni maanaam dañu ko fal maire ba pare du ñëw un maire absent man noonu laa ko tuddee souvent samay postes yu bëri maire absent laa koy wax il est toujours absent euh, ba pare maanaam lu ci bëri day wu ci kaw population yi li tax ma wax ko mooy euh, récemment dañ doon voté suñu budget mais au delà de ça avant ñuy voté budget bi doon xam nga dafa am li ñuy wax compte administratif maanaam année bële bu buñ nattee benn budget balaa année bi jeex dañoo war dañoo war a voté compte administratif maanaam li nga xamante ni moom lañ doon doxal ñu voté ko les comptes administratifs dafa am ay loi ak ay textes yu ko kii yu ko yu ko yu ko tënk mu ni maire bi warul dépasser le premier octobre te voté wul compte administratif maanaam année bi wala moo jeex buñ octobre premier octobre bu ko dépassé te voté wul compte mais maire Ndaxaar tegaat na ci weer ak fukki fan ak ñaar soog koy mën a voté ci coobareem maire maanaam ci coobareem coobareem kese def loo te man maintes fois bind nañ yónnee ko bind nañ posté nañ def nañ lu ne rien que pour ñu voter compte exploratif donc mu nekk loo xamante ne loolu c'est pas maanaam dafay jalgati loi ak texte beneen bi ci topp barki dem dañu voté budget Mbiré Ndaxaar mu 620 et quelque 628 millions 628 millions yooyu ku ne xam na ne Mbiré Ndaxaar amul ressources yu bëri Mbiré Ndaxaar ku ne xam na ni bureau municipal li muy fonctionner doy na waar léegi bu ñu nee ba cabinet maire ñu voté ko mu am 85 81 millions man personnellement en tant que conseiller municipal dama jóg ni leen d'accord ci parce que ay meeru waruñu ko votel benn budget de quatre-vingt-un millions ci cabinet cabinet boo xamante ne ñun mënuñu xam sax li muy liggéey naka lay demee. ci maanaam millions yooyu noonu tey si si lan la lan lay lan lay jëm tey est-ce que mën nga ñu ko leeral dëgg dëgg dëgg parce que bu ñu déggee ay millions te askan presque boo xoolee tey fii mel na ni ni ni muy doxee fii nii tey courant kese lañ fi gis tey ana ana yan leeral ngeen ci mën a jox. waaw millions yooyu euh, comme ni mu ko waxee parce que détaillé nañ ko ci ci ci ci kii bi. Euh, ci budget bi 81 millions yoo xam moo ne ci cabinet am nee na dafay dafa am ay ay ay ay ay dafa am ay conseillers techniques conseillers techniques ne leen fay salaire 7 millions par année ak carburant moom ak ay ay ay ay divers am yoo xamante ni euh, dina kuy ak ay ay bureau matériel bureau ak yooyu ak yu bëri noonu noonu la ko détaillé ci ci ci budget bi euh, loolu moo moo moo tax mu ni 80 ñu voté 80 budget 81 millions mais pour man ak fi mbir a Ndaxaar toll ak euh, mairie bi ñu yor pour man loolu ëpp na tey ñu voter un mm. maire cabinet mu am 85 millions donc loolu nag damay interpeller waat encore une fois askanu askanu Mérina Dakhar xamal leen ni leen man jàpp naa ni loolu ëpp na ba pare même bi ñu voté budget bi man dama demander à ce que ñu voter ko par rubrique parce que ñoom dañu bëgg a jël voter ko furtuf dajale lépp voter ko nga xamante ni doo mën parce que ci biir budget bi am na loo xam tey bu ñu ko tegee man personnellement dinaa ko voter dinaa ci d'accord am na loo xam nag nit mënu tax ma voté ko parce que lu toll ni cabinet maire ñu koy voté benn budget bu 81 millions man buñ ko séparé won diko ko voté personnellement duma ko voté mais ñom aussi comprendre nañ lool xam nañ buñ ko défé par rubrique rubrique bari duñ ko voté ci lañ obligé dajalé ko def ko furtu def ko ben vote lool dal mo mo tax ñu bari pratiquement voté ko mais nak fi may fi may fi may fi may fi ma ciy wax moy il faut que askan wi aussi di xëppi seen i bët di xool il faut que ñi nga xamanteni ni ñoo fa nekkal askan wi aussi di wax ak askan bi parce que bu fekkee dañ la représenté dañ la tànn nga dem représenté maire Ndaxaar nekk ci commune ba lépp loo xamante ni dañ ko fa def te jaaduwul war nga informer askan wax ak askan xam leen kat lii nii lay doxee lii te warut a doxee nii parce que ndaw nga dañ laa yónni kon bu ñu la yónnee war nga delluwaat ci askan wi waxaat leen li nga xamante ni moom mooy sa kàddu yu mu mujj ak bu ñu amee question boo xam ni dañ la ko fàttee laaj aussi mën nga ko jàllale. Euh, voilà fi may fi may daanelee rek xam naa ben qui lay euh, ben alerte parce que à chaque fois ma occasion bi dina ko wax la route Mekhe Pekes dama ci wax parce que tali bobu sonal na askanu kadior kune route, ni depuis ñuko ko ba depuis ñuko ñuko ñuko amul non seulement amul avancé mais poussière bi fi dégagé vraiment sonal na population yi te gis na ni fi ak ci kanam touti mën na gëna a sonal population yi parce que ñu ngi koy nooy te xamuñu li ñu noy poussière la bo xam te ne dafay ci organisme té man japp na ni fi ak deux ans poussière bobu amna lu mi defaat ci population bi donc lool la bëggoon jéxalé pour def ben alerte par rapport ak euh, ak talibi donc euh, di leen jaajëfalaat bu baax a baax di wax ni vraiment ñu ngi kontaan ci dalal ngeen dalal di waxaat encore une fois Ousmane Sonko sera candidat incha allah 25 février 2024 te il sera incha allah le cinquième président du Sénégal.